Assalamualaikum warahmatullahi mbokk yi topp seen télévision Touba Mbella TV nanu ànd déglu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir ci kàddu yu am solo yi nga xam ne ko jëme ko ci ki nga xam ne Omar Diagne kaddu yi nga xamne yëkëti won nako diko di wax ci yoon wi di wax ci sunu sëriñ bi cheikhul Khadim cheikh ahmadou bamba Khadim rasul waye di wax ci dëkk bu sell bi nga xamne modi Touba sëriñ basiru mbacke abdul Khadir, tontu na ci ay kaddu yu am solo jëme ko ci omar diagne mbokk yi nanu and ak Touba Mbella tv diglu sëriñ basiru mbacke abdul Khadir. dañuy wax ne li kulli maqamin maqal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko wara wax li ngay wax ni nga koy waxee ak fi nga koy waxee kon day mel ne jataa bi li may bëgg wax mën naa ne lu génn jataa bi la waaye nag itteel gum ma itteel ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënuma ko ñàkk wax ndax boo demee ci ibnu din day wax ne lakinnaha nafatu masdurin isa jaasalu xaamun min nawahiha xama am na loo xam bu feesee sab dënn rek boo koy génne doo ko tey ndax fan yi choix aadi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom duma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def te dañuy wax ne nit bu la defee eh, dañuy wax ne wa in iza kunta akram akramtal karima malaktahu wa in kunta akramtal la ima tamarada kon am na suñu kilifa gu baax gu ko daa firee ne nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam walla mu fetteeru dem waaye loolu amul solo ndax euh, Sëriñ Tuubaa li ko suñu defal kenn mënu ko wàññi du ci wax du ci jëf du la ndax ñi ëppoon kàttan di tubaab bi fu ne jëm nañ faa jaar ak moom fu ne jéem nañ faa jaar ak moom mënuñ ci dara jéem nañoo jubóog moom booba it lam wax mooy fa in ya'tazilukum fa lam yuqaatilukum wa alqaw ilaykum salaam waaye nag wa in salmi fajnah laha waaye nag wa in ta'udu na'ud lu ci ne moo ko waxoon kon Sëñ Tuubaa loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defaa dañ defoon kon noonu ko Serigne Moussa Ka waxee ci biir mbindu bi rek mooy la leen Sëriñ Tuubaa léebu bañ demee boo ko delloosi ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la da ngay dégg buy buy ñaan suñ borom delloosi ko Sénégal bi laa tasabubin nit ñi lay wax tam bañ ko sabab kon Sëriñ Tuubaa defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la def fa dara luñ ko mën a jame def fa dara loo xam ne tubaab mën nañ ko nett li ginnaaw ko muy lu leer nañ ku bind yëpp yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci deru sëñ Tuubaa te muy loo xam ne nit ñi mën nañ koo saafara seen seen bopp ci benn bi soo la ñaari fan waaye nag jàmm bu amee ci mbir de am lu koy sàmm ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax ndax yéen ma ko sëñ Tuubaa kenn du ko fooyee ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp lu ne mën na cee juddoo te loolu baaxut ci réew kon moom itam na maandu buy waxati na wax ci lam xam na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom liñ mujj wax ci Serigne Touba nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamul nu ñu ko nettalee sax na man diggu ma aw ma jotul di ko diglu mm-hmm. waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baadi di ci jum waaye nam ko waxee demewut noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu waxoon mm-hmm. waxi wax ju leer nañ la ci koor gi mu fu mujj fekk. Saxbaan tàggoogu ma Ramadan nuyoogu ma. koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo lay nuyu nag. ku àgg foofa sa digg sa borom. Eh, tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab. te tubaab yi suñ tubaab xam ngeen ne mosu leen a dara ci ci boppam. bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu. bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne ko dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon. liñ liñ bëggoon amut. ndax gis nañ ne mboolem ñuy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñu dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñëpp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam àdduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiiteel ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital lislaam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooñu mag ñi rafetlu ko ne ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de néegam ñoo jortoon ceew daal di dem ba wëlbati ko wat wax ne dañ laa bëgg a jiital loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci force ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko xam nga loolu lu ko waral mm-hmm. da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag liñ bëgg bu ku ci ànd ak man du doon seen du doon seen coobare mm-hmm. force lay doon mm-hmm. te laa ikraha fi diini daan te innal kaafiruuna illaa fi xurur nee na ñu wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëñ Tuubaa mbiram weesu na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki fukki at saa suñ xëyee luñ gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen postef di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu doogu ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seenu eh, eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ko am jot sax mooy nekk ci den digloo ko jéem a xool ca la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppaloo ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn du ma ko wax lu ma ci dégga rek si jotaay laa ko déggee te bu ma amee sa bu ma bu ma àndee sama sama sama ma ko dégg loolu kon na ci na ko ñëpp xamee noonu am murid nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat te ne ci Sëñ yam ci. Eh, mel na Cheikh Abdoulaye wax Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon nee woon na ab murit day mel ne ëkk te mel ne xobu garab nee na xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko waaye xob ngelaw la ko dugal ca pax ma rek génnewaat ko ca ñun foofu lañ nekk Serigne Touba rek lañ dëgmal xoolu beneen xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mi ngi wër suñu digg ak Serigne Touba suñu digg ak Serigne Touba di di wér di sell muy dëgg muy lu dëggu ci ñun. lépp luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ luñ dëgmal danañ ko daan ndax waaye ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëriñ Tuubaa wane na ko te Sëriñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñ borom la ndax yuriduuna an yutfi'u nuurallaahi bi afwaahihim loolu wa yaaballaahu ak euh, wallaahu mutimmu nuurihi walaw karihal kaafiruun kon neexule waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxal mbirum Sëriñ Tuubaa dañuy mel ne kuy kuy suur kuy suur ker loo gën a jal mu gën a yëkkati ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.